tëngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek safoo site internet di bus mtv Senegal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw ci seeni xibaar dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan bës mtv Senegal cant ak ngërëm ñen leen ci topp bi ngeen di topp seen bi comme ni ñu koy waxee bu fekkee gan nga ci seen bi bul fàtte abonné bës cloche de notification bi surtout like video bi di leen aimé vidéo yi ndax loolu ne si am solo mooy noonu ñu daal di ñëw nag si beneen vidéo vidéo bu ama am solo ay révélation yu pertinente comme ni ñu koy faral di dafay jàngat bu ama am solo jëm si nag ñenn si ñi nga xam ne nag mën nañ lañ leen tuddee ay chroniqueur war a ñu ko mën a waxee ku si mel ni Abdou Nguer ñu ngi koy faral di gis jamono bii muy nekk si média yi ak ay moromam di nag taakale taakale yu metti gouvernement bu bees bi lu le mel nag est-ce que dafay continuer am déet mu mel ni ñoom bi ñi nga xamee ne moom la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye féete woon ci opposition bi seetlu woon nañ ci ay chronique faral di def ay révélation àndoon ak kii di président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu mel ni nag jamono bi ñoom dañoo tourné daal di nag wëlbatiku mel na ku bëgg far si opposition bi lu mel nak di leen ñëw ak ay jangat yu ama am solo ay révélation parce que bo xolé ci système euh, réseaux sociaux bi ni mi doxé bo xam si groupe whatsapp bi la bo xam tiktok bi la wala facebook bi la liberté bi nit ñi am sañ wax gi nit ñi am mo waral après ku nekk tab lool ra ngay tàmm wax noo ko sentir rek mo xam rafet na xam ñaaw na ma fu ngay dox waxal lu la saf waxal lu neex après dara du la fekk léegi nag mu loolu moom mooy dem di attirer influenceurs yi nga xamante ni ñooy influencer askan wi ba ñoom it ñenn si ñoom bu ñu demee si média yi sax xam ni dañoo jàkkaarloog askanu Sénégal di wax sax après ñun dootuñu dootuñu xam ne lan la ñuy wax li nga xam ne dañ ko doon déggee waa réseaux sociaux yi di ko wax wax ju ñaaw la wax ju vulgaire la ñoom it loolu la ñuy imposé si média yi di ko wax jàpp ne ñoom it li ñuy wax du dara. nga gis ne léeg-léeg sax journaliste bi xam ni kii mu ngi wax lu nga xamante ni bii waru koo wax bu lay freiné sax da nga naan tamit nuus lu ma neex laay wax nga commencé mer bu la gënee bu la gënee noppale ba amul sax nga gedd studio bi doon sa yoon moo waral nag léegi ñu dem dema dem ba léegi ba jëli ay ñoo xam ne nee ñoom ñooy experts yi nga xamante ni bii ñoom ñoo war a influencer askan wi ñoo war a waxal askan askan di leen déglu jël si ku mel ni ay Abdou Nguer ak ay waa jëm sax Amine Ndoye ñoom ay Abou Diallo xaw ma tudd xaw ma xaw ma Abdoulaye Diallo xaw ma nu mu tudd noonu ay ñoom Omar Sow ak gars yooyu dem si média yi di tarara yi wax di tarara yi wax après ñoom ñiy wax sax li ñuy wax boo leen dee déglu da ngay xam ne kii di wax li muy wax du xam-xam lu mu faraatoo la si réseaux sociaux ma ko dégloo wax dama ne kii man man ban façon nit la kii est-ce que jàng na français est na alxuraan dégg na anglais dégg na dégg na arabe est mii di wax li muy wax lii lépp lu mu faraatoo la ci réseaux sociaux yi comme ñun ni ne di dajee si groupe whatsapp de ku nekk wax sa xalaat ku nekk andi li nga xamanteni ni nga moom nga xam mo ila mo ngay dégg ñeu partager ko mom la waji di jilat manam diko diko waxat ci kanam kanam askan wi légui nak wa sen TV ba nga lo nit ñi ni ki benn novel la ba nga xamanteni bi dafa war wax askan wi diko déglu li wax dafa amal ndariñ askan wi mais après sax wunte do xam ñun ñun ban réew la ñu yor ndax réew mi dafa dem dem ba tumburanke ay borom yi xam-xam yu wara tok ci média yi nga xamante ni ñoom li muy wax lu nekk rek si xam-xam lañ koy teg dañu koy gëstu ba am si ay firme yor leer door a mën a wax ak askan wi danga naan laa fee Sénégal dafa tumburanke loola moo waral léegi nga xool sax média yi ki nga xamante ni bi dañ ko defee benn invitation mu dox ci benn média mu nekk borom xam-xam di wax Sénégal yu bare bare dañ koy ñàkkal fayda ay waxam duñ ko sax déglu parce que mën naam la muy wax sax dépassé na ñoom niveau bi ñu toll parce bi ñu toll la waaw xasante yàqante dara xëppante asib moo tax nag léegi ki nga xam ne dafa am xam-xam moom di wax si xam-xam ak si wàllu économie réew ni muy doxee yëpp ak aw askan nan la ñu war a mën a mel si aw si sim réew bu siy wax Sénégal yi bari ba da nga koy ignoré duñu mën a xam sax li muy wax lu mu doon da ngay dégg ñu ne okii li moom li muy wax moom jamono dépassé na ko waaye li muy wax moom tolloogun fa ñun fi ñu nekk nii jamono bi ñu toll ni moom xam nga niveau bi lañ toll nan wax si niveau bi ñu toll non moo ko waral média yi nga xamante ni bii ñoo daan dalal boroom xam-xam yi ñoo dema dem bañ nekkal seen bopp fayda di indi ay classe yu Abdou Nguer geeg ay classe yu Ahmed Ndoye doog yu kenn xamul nga xamante ne bi kenn xamul ban xam-xam la am ñu leen léegi yéen yéen a war a wax ak waa penc mi ay classe waa ji nu mu tudd sax Sall xaw ma sa Ibrahima Sall Sall la tudd xaw ma ñun nga xam daanaka ñoom si xibaar maanaam si xam-xami jàmbur lañuy dem gëstu ji ko ñëw tegaat ko si si penc mi. xew-xew yi nga xamanteni bi amna ñu naan man amna firna yu leer neneen ma diw dina def nangam diw dina changer gouvernement bi diw dinañ ko dàq diw li diw lii rek la ñuy waxtaane ñoom du benn xam-xam boo xamanteni ni ñu ko gëstu ba gis loo xamanteni ni maanaam li jëm si wàllu soqali réew mi zone industrie yi nga xamanteni bii war nañu war a mën a xalaat réew mi lan lañ ko war a mën a tabaxe fi mu nekk ni exemple bi ma mën a joxe maanaam exemple bi ma mën a joxe fi mu nekk nii dama fa mel ni Kaolack ñu ngi la usine bu nga xamanteni bi plus de ñenti téméri nit war nañ fa wara mëna liggéey ñu ne la usine bi ñu ko tabaxoon defoon ko immigration ci si jamonoy Abdou Diouf waaye kenn musu fa liggéey dañ ko defar ba mu egg tëj ko ba ko noona ba jamono yi dañ ko ubbiwaat sëriñ bu def benn délégation ànd fa dem tàllalu lampe ya wane nañu appareil ya fa nekk matériel yi nga xam ne moo fa war a man nag ba tey sax maa ngi di déglu waaye dama dama jàpp dama fa gis dafa mel ni usine la bu nga xamante ni bi dafa jëm si wàllu ñaw parce que ma gisee matériel yi ak na mu formé woo damay gis ñaare léeg-léegi moo xam tubaab yi fii seen usines yi nga xamante ne bii dañuy ñëw ay yëreeg ay saag ak ay dàll ak lu ne genre boobu lañ ko liggéeyee man ma usine bi forme bi ñu ko defaree man xam xamaguma ne ba tey lan lay liggéey waaye jàpp naa ne loolu lay liggéey mais loolu ak amoon solo tey ñu def ko ay débat ñoom si ñu ne si média yi journalistes yi dem gëstu ji fa xam tamit sabab bi lan moo waraloon ñaari gouvernement yi fi jaar après Abdou Diouf pourquoi ubbi ñu ko woon. parce que loolu lim meuna yok ci développement bu Sénégal dafa bari ci dafa meuna dugg ci ay ndaw dafa liggéey dafa bari parce que tay bu commencé liggéey ñu ni la kat ñeenti téeméeri gu ndaw ñoo xamanteni bi bii mën am ay dawalkati Jakarta lañu won wala mën naa am sax ay mécanicien lañu won wala mën naa am dañ na defar ay polu jël nañ la légui ñu ngi liggéey ci biir usine ba dina am lu mu wàññeeku lu bari bari ci Kaolack mais loolu pourquoi waxtane wuñu ko xamal sénégalais yi timit ñu leen usine bi li moy njariñ li après réew mi lii njariñ li la ci meuna am waa Kaolack tamit li leen ci mën gagné té dana tax mu attirer ba yenen région yi yenen département euh, département yi man fexé tamit ubbi usine yu mel nona donte la man naa am ñu bokk même façon bu ñu liggéey wala ñu liggéey benen façon xam bo boo demee fu mel ni ngaay suñu mbokk defarkati dàll yeeg ceinture yi der yi ñu ci bari lan la koy seen loxo lan koy mu nekk liggéey bu muccu nga xam ne ñu bëree bëri am nañu xam-xam bi pour liggéey waaye amuñu moyen bi pour mën a def li ñu bëgg def parce que matériel machine yi ñu war a liggéey matériel ñu ko nga gis ñu bëree bëri léeg-léeg si sa pousse yi day yem seen loxo yi paaka bi ñuy dagg seen loxo yi waaye teewul lépp dañ koy muñ ànd ak moom xam ne seen bëgg-bëgg la parce que amuñu doole bi waaye léegi zone bu mel noonu tey bu état beeg Sénégal xam nga tegoon benn pression di ko waxtaane si média yi parce que état toujours aw mu lay déglu ñu wah waxtaane sim média yi fu mel ngaay ak fi jamono toll war nañoo dépassé di liggéey dàll ber ak seen loxo war nañoo wana am beneen façon buñ ko liggéeyee nga xamante ni bi léegi yow li daan liggéey dootul nekkati liggéey bo xamante bi euh, Sénégal dong lay yem day nekk au niveau international àdduna bi fu na marchandise bi day mën dafa dem lan ko may ba ngaay dañ mu leral na ni yow mi daan defaral sa bopp ay dàll daan defaral sa bopp seen tour yére lu mu mën di ko wala sac si der waaye boo ko liggéeyee kat mën naa am boo liggéeyante ba weer wi dee boo musaan la nga say gañe sax du demee noona sa perte sax mosu gëna a mosu gën mën a gaaw feñ par rapport nga gañe si léegi nag ñu ubbul la usine bu nga xam zone boobu la nekk ñu daan defar si wàllu artisanat bi yëpp dafa dafa liggéey mu lan liñ lay fay par weer sa salaire moo ëpp fuuf mën naa am sax bu rek manam eh, commerçant bi nga xamanteni bi artisan bi nga xam amul won doole liñ lay fay par wer legi mo upp sax par rapport yow la nga daan am bo ba nga daan liggéeyal sa bop ko ba ci avantage ki nga xamanteni bi amna ab moyen ben moyen bi ba meuna defal ben saaru pokku sam bu ndaw bo xamne mom fa la nek yor ay matériel di liggéey koko tamit amna doole ju mëna jënd ay machine am nek fay liggéey comme ko nasaran bi defé lélé nga dem ci yenn supermarché yo xamne bi lu leen fay jaay waye da nga gis ben benn benn artisanat boo xamante bi benn pantine bu ndaw la fa yor benn cantine bu ndaw di defar ay ceinture ak ay dàll ak ay portefeuille da koy defar bu sa ceinture amee problème boo ñëwee mu defaral la nga fay ko boo ñëwee fekk mu defar ceinture yoo xamante ni da koy wékk di ko jaay benn bi 20 euros ça ne dépend 30 euros 50 euros ça ne dépend marque ba nga bëgg ak ak modèle bi nga bëgg kon loolu yëpp lan moo tax jëmuñu ko créer artisanat yi mën a gis seen bopp si liggéey bi nga xamante ni commerçant bi nga xam moom xamul nuy defaree aw dàll xamul nuy defaree séntu waaye moom jaay rek la xam kooku day dem mën a dem zone booba jënd fa jënd moo xam ngaay la ko jënd xam loo Sénégal yi ni kat usine bii defaral moom zone ngaay rek ngaay nga a fekk su boobaa commerçant bi foofu la mën la muy jënd moo xam fu mu ko mën di yóbbu si Sénégal wala si sous-région bi Mali Gambie Mauritanie Gabon fu ne mu yóbbu ko fa dem jaayi ko fa moo xam dakaar lay jaay si loolu lépp avantage la boo xamante ne dafay doxal liggéey bi waaye boo xoolee demal ngaay mën nga ni ñooy liggéey ñoom ñooy liggéey seen bopp ba pare tourné waat tegaat ko si marché bi di ko jaay kon xoolal boobu coono ñu boole ko ñoom te normalement ñoom dañoo waroon a yem seen liggéey donc defar naa sac bi defar naa dàll bi defar naa seen tut bi commerçant bi jënd na teg si moom mooy posé si marché bi jaay yi su jaayee jël bénéfice am ñëwaat si artisanat bi mu daa koy waat li mu bëgg mu defaral ko ko mu dem jaay jiwaat su boobaa artisanat bi dootu boolati naan damay liggéey aw euh, dara ba pare turloo di ko jaay sama bopp moo tax boo xoolee ñoom coono bi ñuy am dafay métti dafa bari